bu jëlee ci gàttal chambre de commerce euh, démembrement de l' état la comme ni ko maire yi doonee alors est ce que tey jii état euh, am na considération boobu noonu ci assam ci li nga xam ne moom di chambre de commerce yi par rapport ak surtout yéen opérateurs yi liggéey bi nga xamante ni yéen yéen a koy def. waaw loolu c' est vrai que des na mais man euh, dama jàngaat ko xam ne ci ñun la. ci yéen opérateurs yi. waaw parce que ñun buñ fonkul suñu institution bi nga xam ne mooy institution bi nga xam ne ni moom la état bi war a reconnaître ñun fonkuñ ko dañu préféré kenn ku ne sa association bopp wala sa patronat bopp jël ko nag dooleel boobu parce que peut-être boobu mën nga fa def li nga bëgg tandis que chambre de commerce mënoo ko institution publique la et tamit euh, mënoo fa yóbbu sa bopp il faut que ñu nga am confiance opérateur économique yi nga xam ne nii ñoo inscrit nekk en règle pour ñu dem fa. Mm-hmm. bon euh, en réalité moi je pense que état bi sax daf ko daf ko affaire boobu daf ko réer daf ko réer ba mu jaakaar ne institution privée la. Mm-hmm. da ngay dégg léeg-léeg bu ñu amee problème ñu naan yéen war ngeen a mën a waxtaan seen biir ba juboo absolument te demewul noonu. Mm-hmm. chambre kon dafa amee règle décret moo ko réglementé. waaw xam nga doo dégg benn institution état. ñu naan waxtaan leen ci seen biir ba juboo en privé mën nañ wax ne waxtaan leen ba juboo mais réglementation la am lu waa ñu réglementé ko dañu war a jaar ci charte yooyu. parce que gis nañ sax ay mairie bu problème amee sax fois ñu indi délégation spéciale teg état bi koy indi mais souvent yéen de commerce yi toujours état lay wax régler leen seen problème yéen la yéen moom laa la wax rek état damay ragal ne. Mhm. dañoo am ministre tutelle ministre du commerce tutelle technique. Un ministre tutelle financier. un mhm. ministre tutelle administrative administratif le euh, le ministre de l'Intérieur. chaque fois que chambre de commerce vote voté budget, le gouverneur région bi ministre de commerce a un représentant ministre de des finances un représentant voilà l'ol ce que je ne man dama appris. ne. Mhm. état bi comprendre mais nous, nous devons favoriser waaye dañoo bàyyi gën a dooleel suñu association yi loolu moo tax. ñu xaw a am kon association yi am na li nga xamante ni euh, nanguñ ko wax ci kaw am na ay intérêt crypto personnel yoo xamante ni moom moo tax nit ñi moom la ñu gën a fonk au détriment de assemblée nationale euh, li nga xam ne moom moo di seen euh, chambre de commerce yi. waaw xam nga association yaa ko moom. yaa koy juddal. Mhm. yaa koy rey yaa ci dugal ku la neex yaa ci génn ku la neex yoonu état nekku ci. yoonu état nekku ci. tandis que chambre de commerce melu noonu c'est normal que euh, nit créer association ah, man moom laa gën a fonk parce que pour mën a def exemple man man ci man ko utiliser comme moyen de pression.